te muy xéwal ba ñu yàlla jagleel boole ci yemale ci mboole mbindaa ni mu doon xéwalu nelaw te nelaw da di xéwal joo xamante ne yàlla suñu borom tabaraka wa taala donga ko moom ci moom la nekk moo ko yore te moo koy joxe num ko neexee ak ci kum ko neex ba tax na kenn amul dayo ju toll nii nga nelawal sa bopp wala nga ne nii laa bëgg a nelawee ci waxtu wii laa ko bëggee wala nga amee ko comme na wuute na yàlla di joxe nelaw ba doomu aadama yi di def yàlla moo leen koy baaxee moo leen koy wërsëgal ñu defee ko comme na buur yàlla soobe ñu di ko defee kom nam ko bëggee waaye ñu di ko defee kom nam ko nammee ba tax na nelaw boobu buur yàlla tabaraka wa moo ngi ni bëgg a baaxee doomu aadama bi rawatina yow jullit bi mu ne la sa nelaw boobu nga nekk di def dafa am la ci am mu doon cër gu mag goo xamante ne kenn ku dut man amu ko ci waaye képp ku ko weddi xamal ne buur yàlla moo yore moo am kattan ak sañ-sañ ak man-man ja ni mooy roof nelaw ki ko soob ba tax na buñ demee xool ci téere ba ñu yore ci kaw suuf si mu nekk suñu téere alquranul karim buur yàlla tabaraka wa taala mu di ñu fa baaxee ci suratu zumar ci aaya bay wax ci bañ leen di joxoñal ni mu nekk xéewalu nelaw suñu boroom tabaraka wa taala mu di ñu wax ne allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha buur yàlla de mooy kay faat bakkan bi nga xamante jamono bu mu suuboo ci dee bu ndaw ba ñu naan nelaw yàlla moo lay fàtteloo sa bopp moo lay melaloo melokaan bi nga xamante ne doo dégg dara doo gis dara doo yëg dara ndax yaa ci dee bu ndaw ba ñu naan nelaw yàlla ne man yàlla may def loolu ki ma soob mu ne ñu walliti lam tamut fi manaamiha koo xamante ne dogaluñu ci moom attewuñu ci moom nelaw bu xóot kooku nelaw bu yemamaay lañ koy jëfloo nelaw bu yemamaay lañ koy jëfloo lu mel ni sëngéem yu mel ni jayaxu buur yàlla ne ñu fa yumsiku lati xada alayha al mawt ba léegi bokk na ci kàttanam ci man-manam moom yàlla buur bi tabaraka wa taala mooy tii bakken wa nga xamante ne moo dogal ci bakken jooju mu dee mooy faat bakken ji ko soob gannaaw buur mboole mu ruuxi suubu ci dee bu ndaw ba ñu naan nelaw buur yàlla ne ñëw ba léegi wa yursilul uxra ila ajalin musamma mooy delloo beneen ruux ci jëmm ba mu bàyyee ko woon mu nekk di dund ci jëmm jooju ba keroog waxtu ba mu appawanteeg moom mu daldi ko jële ci kaw suuf si yàlla ne ñu fi daalika tegtal yamaleen tegtal nii mu ngi ci laayatin kawtif joo xamante ne li qawmin yatafakkaruun ñu ko war a xelaat mooy boroom xel yey xelaat mbiru yàlla buur bi tabaraka wa taala pour yàlla moo yore dayo ak capacité ak kattan ak man-man ju toll ni mooy faat mboolem bakken yay suubu ci dee bu ndaw ba ñu naan nelaw ke bëgg diggal kàddu gi nag na nga yeew trois heures du matin xool jaww ji te kaaral ba mu nekkee jàpp quatre heures du matin xool nit ñi tekkaaral ya ñu nekkee ana ku leen placé ana ku leen yóbbu ci tekkaaral boobu dal ba ñu nekkee ana ku leen ko defloo du kenn ku dut yàlla moo tax buur bi nañu ci suratu naba wa na maa leen defal nawuma kom seen nelaw bi ngeen di nelaw subaataan mu doon dallukaay bu nga xamante ne du ngeen amee dallukaay ci feneen wala ci leneen lu dul ci nelaw bi nga xamante ne man yàlla ma leen ko wërsëgal jalla waala bi léegi mu bokk ci xéewal ya nga xamante ne dafa nekk fa moom yàlla xéewal joo xamante ne bokk na ci mu wërsëgal mboolem askanu julit ñu bokk julli waxtu yi fajar bi nga xamante ne moom lañ doon joxe waxtu su néew ci ginnaaw mu doon waxtu bi nga xamante ne mooy jamono bu noddukat bi noddee ne kaay leen ci julli kaay leen ci texe nga xamante ne julli mooy pom ba ñuy jokkale suñu boroom waaye texe bi mooy lañuy ñuy faggoo ci julli bi kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisul qudsi buur yàlla daka xamal jaam bi de bu dee taxaw na ci kanamu boromam ci waxtuy julli boobu moo tax yonent bi ne ñu melokaanu jaam boobu day am discussion soxna Mari bu dee kàddu gi noonu la day am discussion waxtaan ba muy siq boromam yonent bi joxoñal ñu fa xadis ba nga xamante ne mooy qaala rasulullahi sallallahu salaata bayni wa bayna abdi nisfayn wa li abdi maa sa'ala fa ida qaala al abdu alhamdulillahi rabbil aalamiin qaala allahu ta'ala hamadani abdi wa ida qaala arrahmaani arrahiim qaala allahu ta'ala asnaani alayya abdi wa ida qaala maaliki yawmi diin qaal majjadani abdi wa qaal marratan fawwadtu ila abdi fa ida qaal iyaaka nacbudu wa iyaaka nastacin qaal haada bayni wa bayna abdi wa li abdi maa sa'alahu fa ida qaal ihdina siraata almustaqim siraata alladina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala dalliin qaala haada qaala haada alcabdi wa licabdi maa sa'ala rawahu muslim mbokk yi yann jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97.5 jamono ju ba jullit yi doon joxe waxtu yu julli fajar ca jàkka ja ak yow mi koy julli sa kër nga di soxna ak mboolem waxtu julli ya jullit bi di joxe ci bés bi mu doon juróomi yoon yonent bi nee na juróomi yoon la la sa boroom ubbil buntu audience bi nga xamante ne dànkay am ak moom ba tax na discussion bay jaar diggante jaam bi ak boroomam diggante yàlla ak jaamam discussion boobu yaa leyta nit ñi xam lu mu doon bañ ko jox fulla ñu respecté ko jox ko gidd ji toll ni duñu nangu discussion boobu juróomi yoon ci bés bi mu di leen raw duñ ko nangoo nii waaye dañ koy suuraale bàyyi xel dañuy yàkkamti waxtu bi jot ba ñu am audience ak seeni boroom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne ci xadisul qudsi nee na qaala allahu taala buur yàlla àdduna buur yàlla moo ngi nii di leeral jaam bi yenentu bi nee na buur yàlla xamal na ma ne qasamtu salaata bayni wa bayna abdi nisfayn man yàlla de xaaj na julli seddale ko naa julli sama digganteg sama jaam ñaari xaaj yenentu bi nee wali abdi ma saala nee na yàlla xamal na ko ne seddale boobu mu seddale digganteem ak jaamam julli ba jaam bi di julli ñaari xaaj yooyu yàlla xamal na ma ne jaam bi am na la muy laaj jaam bi am na pàcc ba mu am ci julli bi ci la muy ñaan waaw ba tax na du ñàkk am ku laaj ne la jaam bi am ci julli bi comme la ko concerné moom loolooy lan moo tax yàlla ne fa ida qaala al abd bu jaam bi waxee ne alhamdulillahi mboolem xeetu cant yi nañu yàlla ndax yàlla boobu mooy rabbi alamin mooy borom bi ndaa mboolem seen kon lépp lu fi nekk di dukkat nañ leen ko dugal ci tawxiidu rububiya ci wiital yàlla ci moomelam ne moom moom moom lépp amul kenn ku fi nekk di moom lenn yàlla la ko jox te dalaka abal boo ko weddee xoolal ku yore lu ne gàññ keroog ba muy jóge ko àddina ba muy taqale ko ko àddina du yóbbaale dara li mu moom lu dut la koy suturaal te loolu du doon lu bari ba tax na yonent bi nee na yàlla ne ko fa ida qaala al abdu bu jàmbi waxee ne alhamdulillahi rabbil alamin mboolem xeetu cant yu kawe yu matale ñeel nañu yàlla ndax yàlla mooy borom bindaafoon yi mboolem seen yonent bi nee xamal na ma ne bu jàmbi wa ida qaala abd bu jàmbi waxee arrahmaanu ah yàlla de mooy boroom bindaa foo ni nee na yàlla da ko naan xamadani abdi sama jaam sant na ma cant yu kawe yi nga xamante ne donte matale sama melokaan ji waaye sant na ma ci xaala bu mu toll moom moo tax mu ne bu jaam bi alhamdulillahi rabbil alamin qaala taala buur yàlla day àddune xamadani abdi sama jaam bi de sant na ma joo xamante ne mu méngoo tolluwaaya moom yonent bi nee na yàlla xamal na ma ne bi léegi wa ida qaal arrahmaanu rahim bu waxee yàlla mooy borom yërmande àddina waaye mooy borom yërmande àllaaxira yére yërmande ba muy partaase fii ci addina mooy la muy partaase ci yërmande ba méngoog turam bu sell woowu di arrahman mboolem mbindaafoo ni ñoo ci bokk yem ku ko ak ki ko gëmul topp ak ki ko toppul waaye arrahim mooy borom xéwalu alaxira ñeel képp rek dong ci ñi ko gëm waaw ñi ko gëm dong lay sédd turam ju sell jooju mu mun nga ba nekk fa moom te mu boole ko turam ju sell ji nga xamante ne mooy arrahim yonent yàlla xamal na ma ba léegi bu jàmbi waxee lii qaala allahu taala buur yàlla danaan asnaani alayya abdi sama jàmbi jox na ma sama dayo jox na ma sama moomel wa ida qaal maaliki yawmi diin nee na bu jaam bi waxee yàlla mooy buuru bés penc nga xamante ne mooy bésu peyoor ba qaal yàlla danaan majjadani abdi sama jaam nangu na déggal na saxal na sama nekkin sama jaam xam na ne maa fi nekk di dund be faw sama jaam bi na loolee te mu ngi nii di ko wax ci aaya bi walla mu ne wa qaala marratan fawattu ilayya abdi ah maa ngi nii nag di jokk sama jaam bi ci la mu dëggal sama nekkin la mu gëm ne maa fi nekk di buur waaye di buur bu nga xamante ne maa yore programme bésu penc mooy bésu peyoor bi bés bi nga xamante ne képp ku def lu tuuti képp ku def lu ngànd ci lu baax dañ la koy fay duñu la koromp duñ la nax te duñ ne tuuti na jaru ko duñ ne bari na bi xamuñu nu mu toll déedéet yàlla mooy buuru bés pénc bi nga xamante ne bés boobu mooy bésu peyor nee na bu jaam bi waxee lii buur yàlla danaan sama jaam bi déggal na sama nekkin te gëm na ko mu ngi nii di ko fésal ci làmmiñam su ko defee buur yàlla ne maa ngi nii di jokk sama jaam bi installé na la nga xamante ne mooy la koy jàllale ba mu tàbbi ci sama xéewal yi yonent bi ne buur yàlla xamal na ma ba léegi fa ida qaal iyaaka naabudu wa iyaaka nastain du kenn ku ñu war jaamu ku yow du kenn ku ñu war a sàkku ndimbal ku yow yàlla yaa fi nekk nga di ku ñuy jaamu yaa fi nekk nga di ci ku ñuy sàkku ndimbal jaamu yaa ko yeyo keneen yeyowu ko waaw yow rekk yaa fi nekk ñu dila la jaamu ci dëgg keneen ku dut yow duñ ko jaamu buñ koy jaamu tamit jaamu bi dañ koy def ci neen wala ci riir waaye ki ñu war a jaamu ci dëgg jaamu bi di njëriñe ñàkk jaamu bi di lore kenn du kooku ku dut yow yàlla waaye yaa fi nekk di buur bi nga xamante ne yow dong yaa yore lañuy xettali xittalikukaay du si kenn du ci fenn du ci lenn lu dut fa yow yàlla nee bu jaam bi lii nag qaal yàlla da ko naan haada bayni wa bayna abdi la jaam wax nii nag mooy la nekk sama diggante jaam lii yàlla jaam bi da ko jox la mu moom jaam bi baat yañu ñu wax nii alhamdulillahi rabbil alamin yàlla ko moom arrahmaanu rahim yàllaa ko moom maaliki yawmi diin yàllaa ko moom iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain yàllaa moom léegi nag yàlla ne lii sama jaam bi wax ni yëpp maa ko yeeyoo sama yëfa bokkuma cee kenn dara dara raxu ci ki ci am dara kenn amut ci baat yi dara man dong sama yëfa yonent bi ne bu jaam bi waxee lii nag yàlla da ko ne wali abidi masaala léegi nag ubbi naa buntu nangu ñaan na ma jaam bi ñaan la mu soob na ma jaam bi ñaan la mu bëgg na ma jaam bi ñaan la mu yittiwu moo tax mu ne fa ida qaal bu dee jaam bi wax na ne dina siraat al mustaqim yàlla nga ma juubal ci yoon bu jub ba yàlla nga ma orienté teg ma ci yoon bu jub bi yàlla nga téye sama jumbaxu xool ak sama xëtër ak sama xol teg ko ci siraatal mustaqim yoon bu jub yoon bu jub ba ne coow ñëw fa yow yàlla yàlla nga ma orienté si yoon woowee nee na bu jàmbi waxee lii moo tax mu ne fa ida qaal bu jàmbi waxee ihdina siraatal mustaqim yàlla nga ma orienté ci yoon bu jub ba siraata alladina yoonu gaay ñi nga xamante ne an'amta alayhim xéewalal nga leen xéewalu xam yàlla xéewalu wéetalu yàlla xéewalu jaamu yàlla bu sell bu raxul dara ci bokkale wala ci ngistal yoonu gaay yooyee laa bëgg nga teg ma ci de nga ne ko xayril maxduubi waxuma yoonu gaay ya mere alayhim ñooñu waxuma ñooñu de wala doolin waxuma yoonu gaay ña nga réeral waaw nee jaam bi bu waxee lii nag yàlla da ko ne haada li abdi lii la sama jaam bi moom haada lii la ko tàmbalee ihdina siraat almustaqima siraat alladina anamta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala daalin yonent bi ne yàlla xamal na ma ne jaambi bu waxee lii yàlla da ko naan lii la sama jaambi moom waaw lii sama jaambi moo ko moom wali abdi ma saala dinaa defal sama jaambi lii ma ñaan nii la ko tàmbali ihdina siraat al mustaqim siraat alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala dallin loolu jaam bi moo ko moom moo tax mu ne yàlla xamal na ma ne bu jaam bi waxee baat bi loolu la jaam bi moom waaw julli ba yàlla partaase digganteem ak jaam bi loolu jaam bi moom la nekk ci kaw la nekk ci suuf moom la jaam bi moom yàlla moom la ci kaw jaam bi moom moom la ci suuf kon yow mi nga xamante ne jël nga waxtu yu julli di ko julli di ko bàyyi xel di ko defee comme naq yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa xamal ne discussion ba ngay def ak sa borom ci jamono bi ngay julli yaa ngi waxtaan ak yàlla te yaa ngi koy delloo la ma moom yaa ngi koy delloo moomelam yaa ngi koy delloo la nga xamante ne moo yeyoo ci nguuram tax na xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu cofeel ba yàlla buur bi tabaraka wa am ci doomu aadama bi rawatina jullit bi abi hurayrata radiallahu anhu xadis bu solo nee na anna rasulullahi sallallahu alayhi wa qaal naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa daf ne buur yàlla yaquulu llahu taala buur bi tabaraka wa taala dane ana inda zann abdi ana inda zann abdi man yàlla de maa ngi nekk ak jaam njort bu mu am ci sama jëmm ci jaam bi njort bi nga am fa yàlla yàlla ci kem loolu lay nekk ak yow mu ne buur yàlla ne ko wa ana maahu ida dakarani maa ngi ànd ak jaam jooju saa yu mu toogee di ma fàttaliku fa in dakarani saa yu ma fàttalikoo saa yu ma tuddee fii nafsihi ci jëmmam zakartuhu fii nafsi ma fàttaliku ko ma tudd ko sama jëmm jaam saa yu mu toogee tudd yàlla ci jëmmam mu ku yàlla ci jëmmam moo xam la mu wax ci kaw la moo xam lu mu wax ci suuf la yàlla tudd la fa moom waaw nga toog nga ne subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar wala nga naan laa ilaha illallah xeeti yooyu ngay tudd turu yàlla yàlla ne dama lay tudd fa man pour yàlla yonent bi ne xamal na ma ba léegi wa in dakarani fi l malai dakartuhu fi l malai minhu bu ma tuddee ci biir mbooloo ma tudd ko ci mbooloo ba ci mbooloo bi ma tudd wa in taqarraba ilayya bi shirrin bu ma jege ci zibra lu toll ni xasab taqarrabtu ilayhi ziraan man yàlla dinaa ko jege lu toll ni un mètre yàlla ne bu dee jege nga ma centimètre xaaju centimètre lu mel ni fifteen centimètre man dinaa la jege lu mel ni lu ko dalee ci tekku jara ba ci conc waaw dinaa la jege lu toll ni demi mètre yàlla ne wa in taqarraba ilayya ziraan bu ma jege lu toll ni demi mètre taqarrabtu ilayhi baan ma jege ko lu toll ni ki tàllal ñaari loxoom na muy yaatu noonu laa koy teeroo bur yàlla ne wa in ataani yamshi bu dee day dox di ñëw ci man ataytuhu harwalan ma daw gatanu ko xadis bi muslim ak buxaari dëppoo nañ ne xadis bu wér la moo tax mu la muttafaqun aley mbokk yi xadis bi yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa baaxe xeetam ci la saxaabi bi di abi hurayrata radiallahu anhu solo day wone ne yow jullit bi saa man nga dëpp ngir mànde yàlla saa su ne à tout moment war ngaa mën a dajek ngir mànde yàlla des na rek ana wan raccourci ngay jaar ana wan yoon ngay jaar pour daje dajek yërmande yàlla jooje ndax yàlla xam na ne ñu ngi nekk suñu noon ju mag ji nga xamante ne mooy seytaan duñu ñu bàyyi ñu fàggu yërmande yàlla duñu bàyyi ñu fàggu lépp lu yàlla sopp mu doon la mu bëgg waaye du ñu bàyyi ak suñu bopp ñu nekk ci lay kontaanloo yàlla si suñu jëflante waaye du ñu bàyyi ñu mën a fàttaliku yàlla ba yàlla jëflantek ñun lam ñu dig ci maanaa xadis bi daf ñuy bàyyi ak suñu bopp mu di ñu taaralal la koy bégloo moom seytaane te lépp luy bégloo seytaane buñ ko xamee ak buñ ko xamut xamal ne loolu yàlla du si bég ndax pat bu mu signé ak doomu aadama bi mooy dinaa ko réeral dinaa ko rafetalal jëfam dinaa ko toppaloo bànneexu bakkinam te dinaa leen dikkee ci ndeyjoor dinaa leen dikkee ci càmmoñ dinaa leen dikkee ci seen kanam ma dikkee leen seen ginnaaw waaye doo fekk euh, ñu bari ci ñoom ñu doon ñay sant xiiwal ya ngi leen defal kon ndegem noon boobu lañu am ci àddina mu doon suñu noon yàlla nañu ñu ci maanaa aaya alquran xam leen ne seytaane seeni noon la nangeen ko jàppee seeni noon waaw seytaane dafa noonook yéen kon na ngeen ko jàppeek noon aaya bi comme naka mbokk bi di waxe nee na nit ñi dañuy jàng aaya bi dañ koy waxtaane mu doon théorie waaye pratique bi defaguñu ko ndax bu ñu jëlee pratique bi di ko jëfe seytaane du am yoon suñu biir du jëfloo kenn lay méngoog bànnee xam moom seytaane waaye dañ koy théorie li ko waxtaane mais duñ ko pratiquer mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot aya alquran yañ fi yëkkati la mu wundu ci maanaa yal nañu ko yàlla manloo maana ahadis yañ fi yëkkati yal nañu ko yàlla manloo yal ñu ko yàlla wërsëgal ñu mën koo jëfe waxtaan bi jeexut daa fekk ni rek dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi nar a jébbal béréb ba ñay joxe xibaar ci nasaraan saa iliina mawla jalla wa ala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana allahumma ya rabbi aati nufuusana taqwaaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahumma aimmatana wa wulaata umuurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan aqulu ma tasmaun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu